masin ba joona suubu dem gaar ba jóg taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu juróomi waxtu jot ci réew mi Argentine ba tegal ay simil yu néew sëriñ Abo mu Cheikh Mahamadal Fadal Mbàkke dal di fay wàcc ànd ay kilifa yu am solo waaye it ñu teextu ko teextu bu am solo daayira Cheikh Mahamadal Fadal bi nekk file ak jëwrin sëriñ Cheikh Matiley monsieur Abdoul Aziz Bara sëriñ maam Cheikhna Amar ak ñi nga xam ne ñooy jëwriñu fédération bi sëriñ Abo dal di wàcc safonte ak mbokki taalibe yi ba joona suubu dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi fallilo jóg leen nuy sant sayxi fallilu guddeeg bëccëg yaa rocci mboolem lawlu yow fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll sengul daagul dugal tariixu laay Alaaji Fallu yaay Rasulullaay jam nga fa Makka xam nga ni li laay fallu yaa juboog li laay am ngeen li yàlla hubbu laay xam nga ngeen li bàmba hamdu laay sariyatu aqiiqatul iimaan fallu yaay borom kéemaan sëñ Modou Bousso Dieng ginnaaw nuyoob taalibe ak sëriñ bi

jóg leen taxaw jóg nuy sant Seyxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yaw Fàllilu yaay Mustapha yaay Muntakal yaay wàlliyu ginnaaw bi nag sëriñ bi dugg na ci limousine bi nga xam ne moom la taalibe fàggu daal di jël yoon jëm ci hôtel bi nga xam ne mi ngi ci Rivadavia Congrégation foofu nag war na fa def ay fan ba ci altine ji incha allah daañu ko amal ngan gu mag fii ci Argentine capital bi. masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fallilo jóg leen guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem lawlu yaw Fallilu teertu bi xolam set na ci waaye bi mu wàccee fekk fi doomi boppam muy sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke xolam gën naa sedd li ngeen bëgg lépp sëñ Fall na leen ko defal na ngeen dalal seen xel bu baax a baax ndax ni ngeen selal xolam te man biir naa ne xolam sedd na te ba xolam seddee xolam sañ fàllu sedd na te ku ku seral xolam sëñ fàllu sa dana sedd kon na ngeen rafet njort ci ñëwam bii tey la fi mas a agsi tey la ko sunu borom dogal waaye dangeen xam ne sëriñ fallu ñëwoon na fi sol mbubum maam Cheikh Ibrahima Fall na ngeen ci rafet njort bu baax te góor góorgóorlu ci nag góor góorlu ci ci yar ak i teggin ba xolam sedd du du nu woon ginnaaw sax ñu ko soog gis fi saa si lañ koy tàmbalee gis te noonu la ko sëñ Fallou yi defee nag ndax jaami yàlla yi dong ko tax a jóg rawatina jaabatu sëñ Tuubaa gi dimbale nu dong ko tax a jóg nun ñii liñ fi nekk lii ni néew néew am na ñooñ tey lañ ko mas a gis kon nanu rafet njort ci ñëwam bii te xam ne am na lum mu dégg ay dëgg dég yoo xam ne si neexul ci taalibe sëñ Tuubaa yi te gënu ci ñoom loolee la bëgg sëñ Fallou dindi ko ba set indi leen li gën ci yéen sëñ Sidi Muxtaar mi mu fekk ngeen ànd ak moom ci gàttandu bi kañu ko duppee kenn ku nekk xamoon na digganteem ak sëñ Abou Baraka moom Cheikh Omar Fadal loolee nag mën na caa suufu sax ba lu ngeen bëgg rek da ko am incha allah bi muy ñëw ànd nag jëwriñam jee di sëriñ Alaaji Géey Jeen nekk dëkk Fatick ànd ak moom yoon wi mu bàyyi liggéeyam bépp ànd ak sëñ bi ci ci ci saytu donga yi ak sëñ Ibrahima Diaw Diop mii nga xam ne si Amérique la nekk fa lay dundee nu nun yor passeport am fu ko neex dem bi sëñ bi ñëw mu ne ko damay ànd yow jàppale la ci liggéey bi kon loolu bu ngeen gisee ma def ko bëgg ngeen xamanteeg ñoom xam ñooy ñan loolu dong la waaye noog ñun ñii la sëñ bi yamale sëñ bi neen dangeen ngeen yokk da ngeen mucc dangeen am jàmm ca réew mi dana soppi ko lebet domm ci doole sëñ Fallu tàllaleen loxo yi mu ñaanal leen ngeen yeewi ko ñu bàyyi mu dallu ba fan yii ñi ngi mi ngi fi ba fan yii demul fenn waaye nag ku ko gis moom dal na mu xel gis gi moom dal nam xel kon nag yéene naa jaami yàlla yi nekk ci réew mi rawatina waxuma taalibé Sëñ Tuubaa yi jaami yàlla yi laa wax rek teg ko bët ñu tàllal loxo yi mu ñaan te ngeen ñaanal ko nag mu yàgg fi te wér jërë ngeen jëf